leen womat ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala mi ngi nii moom rabiatul adawi ñëpp ci moom lañ jëm allahu akbar kon li muy tekki rek mooy doomu aadama saa yu góorgóorloo saa yu jaare ci yoon yàlla te caaxaanul yàlla moo wax dëgg yàlla nee na wallazina jaahadu lanahdiyannahum sublanaa képp ku góorgóorlu sama yoon bi yàlla nee na dinaa la jubal dinaa la jàppale kon Rabia ba mu tuubee dëggu jaar ci yoon bi te tuubantuwul mu dëggu boole njàng ak jaamu yàlla ak koor ak naafile guddi wallaahi raw na ay jigéeni maas ngi nii ko tey daal ñëw toog bayna zuwaariha ñëpp kaana xamaad bokkoon na ci xamaad ginnaaw ba mu rëccoo moom xamaad moomu nga xam ne doon na def raabiya lu bon asan moom xam ngeen ne rey nañ ko amaata ci mujjoon ñoom ñëpp daan nañ mujj toog raabiya di mu ngi nii ci mooy xamaad mu gëm yàlla raabiya mu bëgg borom ya subhaanahu wa taala raabiya ñëw na na asan xamaad ñëw na tey ci kas na mu raabiya daa toog ne ko indi naa valise bu rëy bii sama alal la dama ko xaj lenn def naa ko fi sabilillah lenn dama ñëwoon pour jox la ko ci pour tak la denc la nga nek sama soxna waaw legi na ma ñewoon pour waxtaan ci ak yow mu ne ko li nga joxe yalla li ci defal tiyaba wa rabia wa amma sey gi nga wax suñu nak lolu mu munta nek ndax man dal dama bëgg nga bayima rek ma jaamu yalla mu ne ko wa jox ma sa loxo ma barkelu ci mu ne ko déedéet goor ak jigéen bi ñu nuyonte allahu akbar lolu day ñun nga xol tay waxuma la goor ak jigéen duñ nuyonte ñun dañuy accolade di joxe ay lekh da gis ku fóon jabaru jàmbur waaw ba pare di ko tiitaru allahu akbar mbokk yi raabi a ngi nii di jàngal jullit yi di leen leeralal yoonu yonent yàlla muhammad di leen jàngal diine di leen dugal bëgg yàlla bëgg borom bi tabaaraka wa taala seen xol sant leen yàlla bëgg leen yàlla yàllaa bind lépp yàlla moo jubale ci yoonu siraatal mustaqim yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga jubal ñu ci siraatal mustaqim yaa rabbal alamin yow borom bindeef gaa yi daan nañuy nangu ñaan ñoom ñëpp ee yéen ñi gëm yàlla yéen samay mbokk ci yàlla tuub leen dellu ci yàlla sàkku leen ci moom xéewalu àdduna ak àllaaxira képp ku ñëw ci yow di sàkku ci yow ndimbal soo ko mënee dimbali ngir yàlla dimbali ko képp ku mu sàng jullit képp ku suturaal jullit bàyyi sa dëkkandoo mu ngi xiif fekk xam nga ko yow tooñkan nga allahu akbar mooy te ni leen nay ab julit di nay yéen jaam yàlla yi bu leen iñaan ndax ku iñaan doo nekk sang alxasuudu laa yasuud nekk leen ay julit bu leen fen julit du fen bu leen seede fen bu leen fecc kóllëre gi ngeen wax ak yàlla subhaanahu wa taala respecté leen ñeneen ñi bu leen jeng di dem ci fenkat yeeg tooñkat yi تكلموا بالكلام ديلن واخ واخ جو احبوا بعضكم بغنت لين سين بير جوليت نا بغ مبوك جوليت يغتب بعضكم بعضا لين جو جوليت جو مبوك ولا تفتنوا بعضكم الله اكبر بولن سيغنال سين مبوك جوليت تعتدوا ولا ولا تعتدوا بولن جلغاتي بولن جيغي دايو هو حرام عند نينا لول حرام نا الله سبحانه وتعالى سامحوا بعضكم بالنت الله يغفر يلا بالين كو بغ كولا يا داغي بالي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يرم لين نيتي سوف واسمان يرم لين الله اكبر كل الوقت دي رابعه جيل سيدي منيم والاخوه والاخوات لي اي كليفه ay sang ay borom xam-xam ñoo ko waroon génne yi naan jigéen moom diineem nangam nangam mu ngi nii jigéen dafa war a jàng diine comme ni ko góor war a jàngee amul fenn fu ñu jàng ci diine ne jigéen warul jàng abadan jigéen dafa war a jàng yaay ay sa mokkaloon na ci xadis 2210 xadis bi daana wax xadis bay gaa yaa ngi koy jam même bu fekkee ne ñu koy jam it am nañu koy koy yonent bi doon wax ne xuzu nisfa diinakum min haazihil xumayra jël leen seen genn wàllu diine ci ndaw ndaw su xonq si te mooy yaay Aïcha yéen jaami yàlla yi sama borom ñu ngi lay sant allahu akbar ñu ngi lay sant yow sunu borom ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay bàkk ndax yow yàlla yaa ñu baaxe diine lislaam yaa ñu baaxee alquran bi muy téere bu tedd bu màgg bi yaa ñu baaxee nga yónni ñu yonent yàlla muhammad yow yàlla yàlla nga sotti say xéewal ak say yërmande ci sunu yonent bii muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla ñu ngi seede na yow dong lañ war a jaamu waruñu jaamu kenn ku dul yow ñu ngi seede ne yonent yàlla muhammad mooy wane ni ñuy jaamoo yàlla allahu akbar waaye ci jamono ju ci at ci at mu betteel rek at at mu jege ci mbetteel ay yéeféer daal di ñëw dugg ci dëkk julit ñi di ko nangu ñu daal di attaqué julit ñi di nangu dëkk bi lal moo xew julit ñëpp daal di daw dem ci rabia naan rabia ñaanal ñu yàlla yàlla baal ñu yéeféer yaa ngi rey allahu akbar julit ñi nekk ay tappet nekk ay ragal ñu ñëpp a ngi di daw lan moo waroon mooy julit ñi taxaw jël seen i ngànnaay défendre seen i mbokk julit rabia nee na leen lan la lu xew bu leen ragal xeex ñu ko yéeféer yi yi dañoo ñëw dañ ñuy rey di balinu di ñuy rey ngeen seen i mbokk jullit yéeféer yi di leen néewal doone yéen ngeen nekk ay tàppet daw da ngeen a bañ a dee ci yoonu yàlla da ngeen di bàyyi noon yi ñuy dammatee di rey jigéen ñi xale yi ndeysaan laaj na leen laaj bu mag bi te mooy laaj bi muy wax alam yaamurukumu diin wal jihaad bi difa ألم يأمركم القرآن ألم يأمركم القرآن وقتال الأعداء الله أكبر والله بلا كيف تهربون القرآن ak diine xanaa sant ñu leen ngeen défendre seen bopp ah kay mu ne ngeen bàyyi seenu kóolute bàyyi seen kattan sen cosaan bàyyi seen pas-pas ngeen daw ñëw fii taxaw di jooy di yuuxu góor yu toll na al muslimun rek bu dekk bi ne yeen julit yi incha allah nañ dem ar suñu mbokk julit ar suñu bop ar suñu diine liggéeyal suñu borom man dama njëkk a ci yoonu yalla ndax dee ci yoonu yàlla aljanna moy fay. Rabia daan na waat conscience yi daa di dekkalaat pass pas ci déwon yi daa di yëgalaat iman yi gaay yi daa di delluwaat ca kër ya waat ak seen borom jëne seen ngannaay dem ar seen mbokk julit li la jamono ju nekk dëgg-dëgg julini yalla subhanahu wa taala war na leen baaxee ak waa joo ndax ngëm yalla day dee mbokk yi ngëm yalla day day rus, mo ra yonte sallam doon wax ne jaddidu imaanakum de len be salat sen ngëm sahaba yi ne ko naka la dekkilaté mu ne qulu la ilaha illa allah dee wax la ilaha illa allah julit ñaa ngi ak sen sappé da nañu songu yëfër yi ñaari équipe daal di dajé équipe yalla ak équipe shaytan allahu akbar yëfër yaa ngi ini ngi nii jullit ñaa ngi di wàcc montagne di joxe seeni bakkan joxe seeni ruu ci yoonu yàlla subhanahu wa taala mi ngi nii xam ngeen ne dee ci yoonu yàlla lan mooy fayam ci lislaam rabia ngi ca kër ga ma ngay jàng alquranul karim di ñaanal gaay ngir yàlla subhanahu wa taala may leen ndam allahu akbar ma ngi noonu mi ngi nii ma ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala ma ngay jàng alxuraan di ñaan yàlla jullit ñaa ngay xeex moom ma ñaan ngir yàlla dimbali leen ndax gëm na ne yonent bi dafa ne addu'a huwal ibaada ñaan mooy jaamu yàlla waaye gëm na ne yonent bi moo ne addu'a silaahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit jullit ñi buñ doon ñaan xeex bi jeex na doon doon ko wax nañ fekk ci di waaj gis ngeen niñ ko jame ci allahu akbar nee na nii la jullit ñi xeexee xeex bi daal di jeex jullit ñi gañe am ndam waaye ñëw fekk ñu ko doon wax Rabia naan ko gañe nañ ñëw fekk ndeysaan ndaw si tëdd nekk ci tëraayam bu mujj nekk ci sukuraat tëraay boo xam ne jullit bu ci nekk war nga ko bàyyi xel tëraay boo xam ne jullit dina ko tëdd ñëpp wër la ndey joor ak càmmoñ ñëpp wër la say doom say mbokk fekkee jigéen ji la borom këram ak dëkkandoom ñëpp ndeysaan yalla subhanahu wa taala ne tëraay bi mooy sa tëraay dootoo tëdd benen tëraay bi tëraay bi war ñun ñep war nañ ko xalaat ku nekk di fi jaar tëraay bi moy tëraay bo xamne ne malakal maut moy ñew jël seru allahu akbar gan go xamne ne bëggul dara loko téré la bëggu ko lu dul sëru rek fa kayfa al hal ida nazala dayf dayful mujtoo maa lahu qiran illa al arwah nee ko di len tag di la tagu ñola doona wax ne gañe nañ mu ne ko bu ngeen xamoon li yàlla santaane ci jihaad kon dootu leen teg seen jaas man day maa ngi di yëgal ni léegi nii man day maa wax baat yi nga xam ne moom la yonent bi digle ku ko wax dugg aljanna maa ngi tudd baatu day ashhadu an la ilaha illa allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله كل رابع في مجك أك في مجي يلا نيالا مجي الله gis mi ngi ni faatu waaye fii lu yéeme mooy ruux gi day génn ci yaram bi comme ni ni yaram bi mel gis ngeen su fekkoon ne gis ngeen ruux gi ni muy génnee su fekkoon ne tey raabe fi mu nekk ni yere yu bon la sol ay awraam nekk ci biti mu faasu meesu xeesal sol ay likra sobala sol ay jumbat aw daal di dangal noonu la ruu gi di génnee dem ci borom bi tabaaraka taala gis ngeen ruu ku bon su génnee du dem ci kaw yàlla sijjin la koy yóbbu amara be comme julit la won ku gem yalla la won melokanam cholam lepp baxna yalla subhanahu wa taala da ko yëkkati ruu gi daal di ko yobbu ay lay gis ngeen ruu mu ngi non di genn ci yaram ku gaa ngi gis ngeen ko mu ngi non gis ngeen niko niñ ko wajale ruugi daal di baax bu sel gis nga bayina yaram bi ci suuf ma ngay dem ci bur bi tabaraka taala su exé daal di bak yalla kañ ko magal ko ñu daal di jël ruugi daal di koy denc ay gis ngeen yaram ruuga ngi ni di yëg bàyyi nit ñi ci suuf mën nga yéeg dem ci kaw asmaan kon lii moo doon film bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa mu defal ñu ci tawfiix ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jubbanti ci suñu dund ñuy woo bépp jullit bu jigéen mu jéem tuub ay bakkaaram jéem a mel ni yàlla subhanahu wa taala santaane ngir ëllëg yàlla subhanahu wa taala dugal ko jannatul firdaws seen mbokk seen xarit al oustaz Saïd Ly moo leen doon traduiral film bi ñaan yàlla subhanahu wa lépp lu ñu ci am ci yiw yàlla nañu ko yàlla boole adduna ak alaxira aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah